Pôle Nord daal di décliner li nga xamante ne moo di plan de développement communautaire mu nar ko fosal ci horizon deux mille vingt quatre deux mille vingt huit. li ko waral mooy Yeumbeul euh, euh, Nord ay weer ci ginnaaw da doon liggéey ak techniciens yi pour def lu ñuy wax plan de développement communal bu deux mille vingt quatre deux mille vingt huit loolu nag. code bi moo ñu ko njëkk sant ci benn article bu wax ne commune bu nekk war na liggéey élaborer def ay diagnostic xool ay xalaat yoo xam ne bu ñu ko tënkee ci ak këyit dinañu mën a ëllëg bu ñu bëggee liggéey ñoo xam fu ñuy jaar lool nag moo tee ñu ootee ndaje bi fii acteurs yëpp ñëw teew. Euh. gannaaw lël bi ñu amal ci wàllu PDC document final bi nag dinañ ko présenté ci conseil municipal ngir ñu adopté ko ba noppi daal di ko jëbbal ki nga xamante ne moo teewal nguur gi ngir rekk mu daal di approuvé waa secteur par secteur boobaa ñu jébbal ko euh, ci ci kanam le conseil municipal ci fan yi wala weer yi di ñëw bu ko joxee conseil municipal ñu mun ñu càmbar ko ñoom it def indi seen xalaat saytu ko saytu ko waat ba ñëpp d'accord na baax na bu d'accordee conseil municipal bi adopté ko bu ko adopté par ñu jox ko le sous préfet moom mu approuvé ko bu boobaa nag ñu jàpp ne officiellement Yeumbeul Nord am na plan de développement communal. ci ngi ko amal ci teewaayu. ñi nga xamante ne ñoo fi teewal askan wi ak partenaires yi